tasnim online moo leen di may jotaayu koor alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mbokk yi asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dokkeel ci koor gi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen comme niñ koy defee ci ngoonu koor gu jot ñu ngi delsiwaat ci jataayu koor di ci waxtaanee xadis boo xam ne xadis bu màgg la di xadisu abdullah ibn abbas radiallahu anhuma mm -hmm. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف حديث بي رواه الإمام أحمد والترمذي xadis bu màgg la di xadis abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas nekkoon xale nekkoon ci wetu yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax bi mu ak bi hijra di gàddaay jóge màkk de medina sorewul xëy na lu lu gën a tuuti trois ans mooy ñetti weer ñetti at moo dox diggante juddu abdullah ibn abbas ak bi ñuy gàddaay di dem madina bi ñu dem medina nekk fa kon du nekkul woon mag lool xale la woon waaye nekkoon xale bu am xel nekkoon xale bu yeewu yonent bi alayhi salatu wasalam ñaanaloon ko bi yonent bi alayhi salatu wasalam ay benn bis ci kër maymuna abdullah ibn abbas daa dem fanaan fa ngir xool yonent bi alayhi salatu wasalam ni muy ndax maymuna umpaañ la woon ci abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas wala boog bàjjen la ñuy wax bàjjen la woon ci abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas dem fa dal di fay fanaan ngir xool yonent bi alayhi salatu salaam ni muy fanaanoo di def ay jaamu yàlla nee na gëmmul bët nelawul mi ngi xool rek yonent bi alayhi salatu salaam bi mu demee ba yëg ne mi ngi waaj a jóg mu dem waajalal ko ndox mi nga xam ne moom lay jàppoo tegal ko ko fam fa muy jàppoo bi yonent bi alayhi salatu salaam jógee dal di gis ne defar lañ ko ndox mu xool xam ne abdullah ibn abbas moo fi nekk moom moo ko war a defaral mu ñaanal ko ne allahuma faqihu fi ddin wa allimhu tawil yonent bi alayhi salatu ne kan moma defal li daldi ne yow yalla nang ko may deg ci dine te may ko mo meuna nek nekk kuy firi li nga xamne moy waxi yàlla ji abdullah ibn abbas nekkon borom xam-xam bu mag malgré jeune âge bu mu amone yonente bi alayhi salatu wasallam loolu setlu won ci mom ak xër gi mu xëroon ci xam-xam motax ben bis ñom ñaar dañu bok war ci benn waruwaay te loolu bokk na ci suufeeg yonente bi alayhi salatu salaam ak oyofam dan na andak sahaba yi ci dox di andak ñom ci war di toogandoog ñom di demandoog ñom di génnandoog ñom ndax lolu moo doon ay jikkom moy nekkon ku soufey sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ku wàcce bopam ngir nit ñi fa bima rahmatin min allah linta lahum salawatullahi wa salamuhu alayhi mu daldi wax abdullah ibn abbas ne ko ya gulaam yow xale bi yow gone gi uallimuka kalimat dama lay jàngal ay bat mana limi nek nek gone terewul mu sako ay baat jàngal ko ay baat yoo xam ne abdullah ibn abbas fàttewu ko ndax li mu làmbool ci maana ak yaatu bi mu yaatu lim ko wax mooy ixfadillaha sàmmal yàlla yaxfad ka yàlla dina la sàmm sàmmal yàlla mooy sàmmantewul sa diggante ak yàlla ci di def ay ndigalam di moytandiku ay tereem même bu fekkente ni da ngaa wéet kenn gisula ngay bàyyi xel yàlla mooy di fuklu yàlla di bàyyi xel gisub yàlla ci yow ak xoolub yàlla ci yow foo mën a nekk day def loolu loolu boo ko defee yàlla moo lay sàmmal boppam yàlla moo lay jox kaaraangay boppam ixfadillaha tajidhu tujaahak sàmmal yàlla foo nekk yàlla dina ànd ak yow saa boo jaaxle yàlla dina la dimbali yàlla dina ànd ak yow ci ndimbalam yàlla dina ànd ak yow ci kàttanal la yàlla dina ànd ak yow ci aar la muy maaya xassa muy ànd boo xamante ni mooy ànd bi yàlla di ànd ak ñi nga xamante ni bi ñoom la gërëm ànd bi yonent bi alayhi salaam doon wax abou bakar bi ñu nekkee ci xuntu ba naan ko laa taxzan inna allah maana bul am lenn looy jaaxle bul am lenn looy tiis ndax yàlla mi ngi ànd ak ñun ci kaaraangeem yàlla mi ngi ànd ak ñun ci dimbali kon bu fekkee nit ki bëgg na loolu na góorgóorlu ci rafetal digganteem ak yàlla ci sàmmonte ak yàlla subhanahu wa taala ci yi ko yàlla sant ak yi ko yàlla tere fépp fu mën a nekk mu jox ko sant ndigal boobu ne ko ida sa'alta bu fekkee da ngay ñaan is'alillah bu dee da ngay ñaan ñaanal yàlla ida saalta fasalillah bu dee da ñaan ñaanal yàlla boo amee lu la jaaxal lu la të loo xamante ne bi lottu nga ci ngay yëkkati say loxo di ñaan bul ñaan kenn ci mbindee fii ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mooy ki am kàttan mooy ki am man man ci wuyu la mooy ki waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daan falyastajibu li walyuminu bi laallahum yarshuduun mooy ne nit ki bu fekkente ni dafay ñaan di laaj fu mu nekk ak lu mu sori sori ak lu mu làqu-làqu ak lu mu ruqi-ruqi bu ne yaa allah yàlla dégg na wooteem bu ne yaa rab yàlla dégg na wooteem yàlla mi ngi koy gis yàlla mi ngi koy dégg te fu mu mën a nekk yàlla mën na fa àgg ak ndimbalam yàlla mën na fa àggale ndimbalam àggale fa mayam lu mu laaj yalla, ak lu mu ñaan yàlla lu mu rëy rëy ci moom yàlla mën na ko koo jox moo tax kon kuy ñaan na nga ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala rek lañ war ñaan yàlla subhanahu wa taala rek lañ war a kon yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko bu fekkente ni da ngay ñaan ñaanal yàlla loolu mooy sual bi nga xamante soalu sualu ibada la mooy sualu sualu doa la mooy ñaan bi nga xam ne ñaanu jaamu la ñaanu toroxlu la ñaanuk lottu la ak të goo xamante ni li ngay ñaan tëna la ko te jaam ñi nga ni li yàlla rek subhanahu wa taala moom laa koy ñaan nga ñaan ko yàlla subhanahu wa taala ñaan gu mel noonu duñ ko ñaan bindeef doo toog yëkkati say loxo di ñaan bindeef moo xam ne faatu na newatu fi wala mbindeef moo xamante ne nekku nekkul fa nga nekk nga koy ñaan nan ko yow diw defal ma nangam yow diw defal ma nangam cër bu mel noonu yàlla subhanahu wa taala rek moom lañ ko war a jox ñaan gu mel noonu yàlla rek subhanahu wa taala lañ ko war a ñaan ndax ad du'a hi al ibada li nga xamantene bi mom moy ñaan mom moy jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg ñaan mom moy jaamu yàlla subhanahu wa taala motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن ibadati سيدخلون جهنم داخرين سني بروم subhanahu wa ta'ala سين بروم نينا نانغين كو ko ñaan ma wuyu leen uduuni la wax ñaan leen ma astajib lakum ma wuyu leen mu teg ci ne la inna alladina yastakbiruuna waxul an duaai may def ne an ibadati ñi nga xam ne ñooy lànk di rey rëylu di bañ a ñaan yàlla subhanahu wa muy ñaari ñaan duaa u ibada ak duaa u masala ñaan koo xam ne ñaanuk jaamu yàlla la ci li nit ki def lépp ñaan lañ koy tuddee bu nit ki waxe la ilaha illallah ñaan lañ koy tuddé motax tax yonente bi alayhi salam ne moy afdalu dua ñaan gi gën ci ñaan yi moy la ilaha illallah ndax ñaan yàlla tekki wul rek ne dang koy laaj dara ne ko na la ko defal mais zikr bi ngay zikr di jëkëti ay baat di wax subhanallah di wax alhamdulillah di wax la ilaha illallah loolu zikr la boy tàgg yàlla di ko bàkk di ko màggal defuloo ko noonu rek ngir def ko mais dang nga koo def ngir jaamoo ko yàlla yàlla fay la ci yool kon mel na ne yaa ngi def loo xam ne yaa ngi ci ñaan yàlla yoolam ak ay ngëneelam donte tudduloo ko ne yàlla defal ma mais li ngay def lu baax la ci kañ yàlla ak ci màgg ko ak ci bàkk ko bu ko defee yàlla subhaanahu wa taala soxlawul nga naan ko defal ma wala may ma yool ci li ma lay defal yërmande weesu na foofu doomu aadama sax ci doomu aadama yi bu tabe bu nit ñëwee ci moom naan ko yow nit ku baax nga nit ku nàngam nga di ko wax ay ngëneelam day jël dara dal di ko koy jox ndax xam ne xëy na loolu mu koy wax dafa bëgg mu am lu mu ko jox naka nag jaam bi nga xam ne moom mooy toroxlu ci kanamu yàlla di ko bàkk di ko kañ di ko yëkkati subhanahu wa taala kon loolu ñaan la buñ ñu tuddee duaawu ibada beneen ñaan bi ci des mooy duaawu masala mooy ñaan bi yàlla nit ki di ñaan yàlla rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxira rabbana la wa hakada ñaan yu mel noonu nga xam ne nit ki day ñaan yàlla yàlla may ma nangam yàlla defal ma nangam yàlla xettali ma ñaari ñaan yooyu yëpp ci yàlla lañ koy def yàlla lañ koy jëmale desu ko jëmale ci mbindeef ndax mbindeef lottu na ci loolu tolluwaay bu mel noonu yàlla rek moom moo ko yelloo nit ki toroxlul ko nit ki yaakaar ko foo xamante ni du fa tudd doomu aadama ndax la muy ñaan yàlla rek lees ci yaakaar fa muy ñaane itam yàlla rek moo ko fa mën a dégg mooy doomu aadama mbindeef amul mën-mën ci dégg-dégg bu mel noonu ndax daa nekkul fépp bay mën a dégg li ngay ñaan amul kàttan ak man man ci def ak dindi ci jamono ji ba li ngay laaj nii wala li ngay ñan nii ci wërsëg nga ko koy ñaan ndax loolu nekkul ci loxoom loolu ci loxo yàlla la nekk moo tax mu waxoon ci aaya ba ne na ngeen sàkku seen wërsëg ci yàlla na ngeen sàkku seen wërsëg loolu Ibrahima waxoon xeetam ci yàlla kon wërsëg ci yàlla subhanahu wa taala lañ koy sàkko moo tax yonante bi alayhi salaam wax wax Abdullah na Abbas ne ko ida sa'alta fas'alillah booy laaj laajal yàlla beneen laaj bi ci des mooy laaj mbindeef loo xamante ni lu loo ko mën a laaj la ci lu lu mu la mënal ci seen diggante ci lu naturel lu normal loo xamante ni nit da ngay wax ne ko defal ma lii wala may ma mbir sàngam wala aal ma mbir sàngam wala kaay jàppale ma ci mbir sàngam mu nekk loo xamante ni ci cadre doomu aadama lu ñu mën a lante la seen biir loolu dara nekku si waaye ñaan gi muy wax naan ko boo koy ñaan na ko ñaan yàlla mooy ñaan gi nga xamante ni dafa làmbool yëkkati ak màggal ak jox cër gi nga xamante ni yàlla rek moom moo ko yelloo loolu dee su ko defal keneen ku dul yàlla mu daal di ci teg ne wa ida staanta fastain billah booy dimbali ko dimbalikool yàlla booy sàkku ndimbal ci say mbir te la ci jiitu mooy say mbiri diine bi nga waxoon ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yow yàlla yow rek lañuy jaamu waaye yow la ñuy dimbali ko itam al imam ibnul qayim nee na li gën a am solo ci li jullit bi di dimbali ko yàlla mooy ci jaamu yàlla jaamu yàlla ji tax yàlla sàkk la te bu la ci yàlla taxawul doo ko def wala doo ko defee ne yàlla bëgg nga dimbali ko ci sa borom ngir yàlla dimbali la ci nga mën koo def comme ni ko yàlla subhanahu wa taala bëgge loolu moo tax yonante bi alayhi salatu wasalam waxoon muaz ne ko muaz man dama laa bëgg te dama laa bëggal li ma bëggal sama bopp bul bàyyi mukk di wax boobu mi ngi koy yebal ngir mu dem yeman xalaatoon na ni Muaaz du gisantewaat ak moom ndax xëy na dina fi jóge laata Muaaz di dellusiwaat salawaatullahi wasalaamu alayhi mu koy dénk di ko wax jàpp ci buumu waruwaay bi nga xam ne moom la Muaaz war di ko wax ne ko yow Muaaz man dama laa bëgg te dama laa bëggal li ma bëggal sama bopp saa boo julleetee ba noppi yenn ci borom xam-xam yi ne nañ ba noppi mooy boo demee ba def sa taaya bay waaj a sëlmal lu ëpp ci ñoom nee nañ foofu mooy li ñu tuddee duburu salaa ndax duburu shay yakunu muttasilan bihi bu ñu waxee ne ci catuk julli gi la mooy laata ngay sëlmal foofu noonu ci xadis abdullah ibn masud yonent bi alayhi salaam waxoon na ni bu fa nit ki àggee na xool ci li ko gën a yëm ci ay ñaan mu ñaan ko ndax palaasu ñaan la mu waxoon ko ne ko dellu wax ne allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik doon na wax ne ko del wax yàlla mu dimbali la ci nga koy tudd wala nga koy fàttaliku di ko jaamu di rafetal jaamu nga koy jaamu di ko gërëm moom yàlla subhanahu wa taala di ko delloo njukkal ci xéewal yim la defal ñaanal yàlla yàlla dimbali la ci loolu nii nga dimbali ma ci kaw loolu kon booy dimbaliku dimbalikool yàlla booy dimbaliku ci seen mbiru àdduna nekk ci ay jafe-jafe wala soxla mbir yoo xamante ni soxla nga dimbal lu la ci jóge ci sa borom bul dimbalikoo keneen dimbalikool yàlla subhanahu wa taala loolu dina la musal ci ay bokkaale bokkaale wu ñaan doomu aadama yaakaar doomu aadama wala ñaan mbindeef wala yaakaar mbindeef moo xam ne yoralu la njariñ mënalu laa xëccal njariñ mënalu laa dàqal lor ndax mënalu ko boppam yonent bi alayhi salatu salaam ci boppam yàlla subhaanahu wa taala daf ko wax ne ko qul laa amliku lakum darran wala rashadan waxal nit ñi ne leen yoralu ma leen lor yoralu ma leen mbaax yoralu ma leen njub nekkul ci sama loxo waxal nit ñi ne leen yoralu ma sam bopp lor yoralu ma sam bopp njariñ lu dul lu soob yàlla kon mbir mi ci loxo yàlla subhaanahu wa taala la nekk yàlla mooy jariñ yàlla mooy lor kon booy dimbali ko dimbalikool yàlla yàlla moo jara wóolu yàlla moo jara dimbalikoo وإذا إذا وإذا استعنت فاستعن بالله بوي ديمبالي كو كون ديمبالي كول يالا دينا لا موسال تيميت تي دوغو تي افيرو نجابار موي دومينو شيطاني ناخ نيت ني نتي بري بونيو جاخلي ني ام اي سوخلا فوف لا لين شيطاني دي خلال ني ديم فا ناخ جاب نا ني راكورسي لا يو خامني دينا لين ماي لي ني بëgg تي دون تي سون بوكو ديفه ني ديم ني لين دي ناخ تي تورو اي نيان نان داف ماي لي داف ماي نيانال دافاي فا سما اديو داف ماي گينالو اي سارخ fekk na ñu ngi dugg ñoom ci ay xeeti xam-xam yu ñuul yoo xam ne lépp ci cadre njabar la léegi ñu daal di tàbbi ci loo xam ne dafay yàq seen diine dafay lëndëmal seen diine lëndëmal seen àdduna ndax xam-xam bu ñuul la bu lëndëm bu bon boo xam ne bu ci nit xasee dugg mbiram lépp dafay lëndëm mbiram lépp dafay tëju ab noonam da koy jekku di ko manipuler te noonam boobu moom mooy seytaane yi seytaane yi nga xam ne liñ bëgg rek mooy détruire doomu aadama bul may sa bopp bul mu leen may mukk ci sa bopp yoon di leen tijjil bunt di leen tijjil say fay ñuy dugg ci sa ci sa ci sa ci sa dund di am lu ñuy am ci yow loo xam ne yow yaay sabab bi leen ko may ñu koy utiliser di la yàqal sa diine di yàq sa pas-pas di yàq sa digganteeg sa borom ci xeetu njabar bi ñu lay def loo ak offrande yi ñu lay génneeloo te ñoom ñu ko tuddee sarax foofu la confusion bi nekk mooy la moo sarax bi ñu jëfandikoo waruñ ko woon jëfandikoo ci liñ leen di génneloo liñ leen di génneloo pour neexal ay jinne la moo tax duñ leen génneloo lu amal nit njariñ immaa ñu turloo leen deret wala ñu turloo leen ay soow wala ay guro juróom-ñaari guro yu weex juróom-ñaari guro yu xonq loolu du sarax booy sarax di jox dangay xool lu am njariñ nga jël ko jox ko nit te yàlla tax te yàlla tax waaye jël ay puso di joxe jël ay sondeel di joxe jël ay perkaal perkaal di joxe jël ay ndox di joxe yoo xam ne ay fanaanoo li nagam sàngam yooyu yépp jinne yi am na luñ ci jublu mooy not giñ lay gën a not ñu lay génneloo ay mbir naan la boo dajee ku mel ni jox ko boo xëyee ki nga njëkk a dajal defal nangam wala jëlal li nga jëlal ay nen nga dem teg ko ci selebe yoon ci benn carrefour benn nangam sangam defal li yooyu yépp ngir wàccee nit ki suufeloo ko bu ko defee gën a mën a yëkkatiku ci kawam wa annahu kaana rijaalu min al insi yacuduuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduhum rahaqan saa bu nit ki demee di làqatu ci ñoom di ut ci ñoom dimbal ñu gën a yëkkatiku gën a jekku nit ki gën a am doole ci kawam bu ko defee di ko tiital di ko indil njàqare di gën a exploiter faiblesse boobu ndax jamono bi ngay nekk ne danga tiit dangaa jaaxle jamono jooju ngay perte sa contrôle perte say pouvoir bu ko defee ñoom ñu gën laa mën a dugg gën a mën a yàq sa dund gën koo mën a lëndëmal liy dimbali nit ki nag mu bañ a dugg ci yooyu mooy kóolute gi muy wóolu yàlla te yonentu bi alayhi salatu wax ne booy ñaan ñaanal yàlla bul yàkkamti ndax yonentu bi alayhi salatu nee na yàlla dina nangul kenn ci yéen ku koy ñaan li fekk xaddiwul yustajabu li ahadikum ma lam yastaajil xaddi mooy dem ne maa ngi ñaan bële kenn nanguwuma moo tax ma ni ñey dem ci yele ay raccourci la ñuy jël ndax dañ naan lay jooni jooni la te dañoo xamul doxalinu suñu borom subhanahu wa ta'ala léeg-léeg ngay ñaan yàlla mbir yàlla xam ne mbir mi bu la ko mayee mu yàqal la ndax doomu aadama wa al insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula doomu aadama dafa yàkkamti doomu aadama dafa yàkkamti léeg-léeg li muy xëcc di ko bëgg yaakaar ne njariñ la mbaax la léeg-léeg lu bari la ci nekk ci loraange ni muy xëccee loraange di ko ñaan noonu lay xëccee timit ni muy xëccee mbaax di ko ñaan noonu lay xëccee timit loraange te du ci xam du ko xam du ci conscient yàlla xam na ne léeg-léeg am na lu nit di ñaan loo xam ne bu ko ko mayoon mu jural ko fitna joo xam ne yàqal ko lu bari ci dundam ba sax soomatul yàqal ko diineem kon yàlla moomu ngay ñaan moo la gën a xam say mbir yow gën a xam li gën a baax ci yow xam ban jamono la lii war a ñëw ci yow yàlla xam na loolu yépp am na benn fitna ak musiba bu lay jublu boo xam ne bu dalee sa kaw loolu ngay ñaan dootoo ko tal yàlla teggil la fitna bi teggil la musiba boobu naroon la yàqal sa dund fekk ne nangu na sa ñaan defal na lu raw sax li nga doon ñaan mais yaa ko xamul wala ay bàkkaar yoo xam ne mu ngi lay topp di yàq sa diine yàlla jéggal na ko dindil la ko xam ne loolu moo gën a nekk lu jàmp ci yow ka li ngay ñaan ndax lii boo ko ñàkkee du la wàññi dara ci li ci yow ci yow loo xamul waaye lële dina la yàqal lu bari wala yowmal qiyaama nga ñëw yàlla ne la ñaan yi nga ma doon ñaan lu ci bari dama la ko dencaloon xam ne fii nga ko gën a soxla yonent bi alayhi nee na julit bi bu ko yàlla joxee yoolu ñaan yam ko doon ñaan ci àdduna te joxu ko ko fii ci àdduna mu dencal ko ko danaan ak a neexoon sama ñaan yama daan ñaan ci àdduna yépp ñu bañoon ma koo nangul foofu dencal ma ko ba ma ndax neex gi mu neex ci moom ak surprise bu neex bi mu am waaye doomu aadama dafa yàkkamti mbiram lépp bu lu mu bëgg danaan kut ko kut na am na am léegi léegi loolu moo tax kon booy laaj booy ñaan ñaanal yàlla booy dimbali ko dimbali ko yàlla mi yor ndimbal yàlla mi mën a indi njariñ yàlla mi mën a lor kon ñu taxaw foofu ci xadis boobu ba suñu beneen jataay insha allahu taala ñu àggale li ci des wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تسنيم أونلاين مولن دون ماي جوتايو كور membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam